responsabilité mais tout un chacun sa responsabilité engagée face à cette merci beaucoup jërëjëf euh, Daouda Guèye bu ma déggee euh, jéegi moom li mu jàpp mooy naam euh, état am na responsabilité mais askan wi tam am na responsabilité ku wax askan wi nag gis nañu taxawaay bi ci frappe di amal ku wax frappe di nga wax Guy Marius Sagna di nga wax Daouda Guèye di nga wax ñeneen ak ñeneen ndax jàpp nga ni responsabilité askan wi dafa gën a engagé wu ci lii nga xam ni moo xew yow waaw PAM donc PAM euh, ngañ dégg naa sama sœur jéggi li mu wax muy mel ne dafa jël responsabilité bi li ci ëpp euh, cërale que li nga xam ne moom mooy askan bi gis nga pap aw askan bu fekkonte ne ñoom mën nañoo yor seen bopp teg seen bopp ci yoon kon euh, du ñu jël xob muy seen baat dugal ko ci urne jox ko nit ne ko kat dañoo bëgg yow nga yoral ñu jaarale ñu ci yoon mhm. te loolu moom moo indi état bu ko defee état ci boppam moom moo war a teg ay atte maanaam ay loi ba pare nag taxaw ci loolu noonu ñu doxal ko waaye bu fekkente ne nag dañoo def loolu ba pare nag ñu waat askan wi ne askan wi yar leen seen bopp euh, teg leen seen bopp ci yoon yi askan askan la ak ay manquement am ak ay matadeem tax li ko neex la xam mu jël kàddoom am ñu mu ko jox mhm. jël kàttanam am ñu mu ko jox ñoom ñoo war a defar ay atte manam ay loi ba pare ginnaaw loolu taxaw nag jël matukaay yi ci war ngir àtte yooyu ñu teg ak loi yooyu ñu teg nit ñi euh, tënku ci dëgg la naam booy xool ci tali bi léeg-léeg di nga gis comportement wu yenn dawalkat yi yenn chauffeurs yi euh, yaakaar naa ku nekk ci tali bi da nga koy gis di ka naqarlu mhm. waaye du askan wi ñoom ñoo mën a fajal loolu seen bopp ki ko war a faj mooy ki nga xamante ni moom lañ jox kàddu muy état comme ni ma ko waxee mu teg ay loi jël ay matukaay ay alkaati ci tali bi ak yeneen ak ngir ñoom ñu moo tax booy xool tey mesures yi ñu jël yaakaar naa bu yàggul dara bi fi euh, premier ministre bu Abdallah Dionne nekkee jëloon nañ fii yeneen euh, mesure ah, yoo xamante ni euh, kenn xamul fan la mujjee ndaxte bu mhm. doon ne doxal nañ ko dinga ko war a dox amaana jëye ji mhm. ah lu ñëw ci yàlla lay jóge waaye mën na bañ a am waaye moom moo tax xel xaw a teey ndaxte tey dafa mel ne dañuy xaar ba jëye am coow li jóg ngir fay coow li ñu daje génne ay dogal bu ko defee dundalaat yaakaar ci nit ñi buñ demee ba ci euh, ay juróom-benn weer mu lépp tàbbi géej ñu weyaat ci nit ñi nekkoon ba jeneen jéye ñëwaat ñu nekkaat yi booy xool mesures yi ñu jël nii ah nekk na loo xamante ni dañ ko waroon a jël dañ ko waroon a jël balaa jéye jii di am ndaxte lii indi jéye ji yëpp facteurs yëpp yëpp yëpp saa su nekk ñu koy dund ay nit jóg di ko wax ay nit jóg di ko ŋàññi di ko ñaawlu muy àgg ba ci kilifa yi waaye ñu tànkam lu loolu ba lépp daje nag jur jéyee ju mel nii bu ñu tegee euh, mesures yi booy xool mesures tey euh, ni ñu ko doxalee am na ci ñoo xam ne ci transporteurs yi mi ngi wax sànq naan dañu am doole dëgg la ndaxte itam faaw ñoom tamit ñu jëm euh, sàmm seen ak ak mhm. seen di ay yelleef am ci ñoo xamante ni bi ñu génnee ci conseil interministériel bi dañ ne dafa manqué ni ñu tuddee inclusivité ak participativité parce que mhm. gaa waxtaan nañ balaa ñuy génnee dogal yi waaye bi ñu demee ba jël dogal yi amul waxtaan wu ñu indiwaat ngir ñoom ñu mën cee joxe seen seen seen ay gis-gis ba bëri am na poñ yoo xamante ni ah, yoo xamante ni war nañ cee war a mën a taxawaat def ca taxaw seetlu lu mel ne liñ ne que dañuy aaye ku voyager euh, guddi gi. waaye bu fekkee urgence nag koo xamante ni mi ngi fi nekk fii Ndakaaru am ay ba ay waajuram nekk ci région yi am lu dal ci seen njaboot nan nañu def dañuy toog ba ci ëllëg si ñuy doog a dem. yaakaar naa loolu war nañ ko euh, seetaat beneen bi itam mooy li nga xamante moom mooy dogal yi ñu jël muy mesure PAP kan moo koy doxal ay nit ñoom ñoo koy doxal ñan nit la du nit ñu bees nit ñi fi nekkoon la te ger gi nekk ci réew mi ger gi ger gi nekk ci réew mi fële service de mines fa ñuy amee lii nga xamante moom mooy carte grise am na ñoo xamante ni Euh, ay visite technique boobu am na ñoo xamante ni du ñu teg seen tànk foofu oto du fa dem léeg nga daje ci tali bi oto yoo xamante ni daf lay wóor ne oto bi musul dem fi ñuy defee visite technique ndaxte oto boobu noonu bu demoon fa ñuy defee visite technique. jarul sax ñu koy defal visite bu ñu ko xoolee rek. Mhm. jëmmi oto bi rek. oto boobu noonu moom boobu lañ koy yóbbu euh, sàkkal ko euh, pexe te oto yooyu ñu ngi daw fii nekk ay cercueil ambulant te yooyu yëpp di romb ay niti nguur muy alkaati yi ñu koy gis te dara du leen ci fekk ger ga fa nekk. yaakaar naa nekkatul secret pour personne beneen bi itam nga dem fi nga xamante ni nii nga xam ne moom lañu joxee permis euh, ki nga xamante ni bokk na ci kuréelu liggéeykat yi yëngu ci transport muy góoru xuma yaakaar naa maa ngi koy déglu koro mu koy wax ne gaa am na permis yoo xamante ni ñu tuddee ay faux permis waaye am na ay vrai permis yoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom lañ ko jox yelloo wuñ ko maanaam dañoo toog def ay pexe jaare ko ci ger googu ñu jox leen li nga xamante ni moom mooy euh, lii di permis beneen bi itam mooy alkaati yi nga xam ne ñoom ñoo war a sàmm li nga xamante ni moom mooy circulation bi loolu tamit yaakaar naa ne jarul sax ñu ko wax ñëpp a ko xam ñaar téeméer yeeg ñeenti téeméer yeeg ger gi ci tali bi ngay gis ay oto boo xam dafa yab loo xamante ni jaaduwul waaye ñëw taxaw ab diir mu dem ndax am na nu mu defee ko loolu nag buñ ci mënta jóg buñ ci mënta jóg yaakaar naa ni mesures yi nga xam dogal yi nga xam nañ ko jël ñoom ñu war ko doxal mm-hmm. ah, ger googu tànk dañul dana jafe te guerre gi di tax du yéen neex a dañ mooy li wax ne nguur ñoom lañ jox état ngir nga xamante ni ñoom ñu jaaree nit ñi ci yoon waaye day fekk ñoom ñu jaar ci yoon ndax ger googu noonu kat mooy ger gu ndaw gi ñuy wax ndax dafa am ger gu mag gu nekk ci kaw yaakaar naa ne bokk na ci li ñu war a waxtaanee rapport Cour des comptes ak yeneen rapport daf koy wane yoo xamante ni moom mooy tax ba nga xamante ni damay faral di wax naan lii di ger muy corruption euh, boo ko bëggee dindi mi ngi mel ne rek nga bëgg raxas ay escalier da ngay commencer raxas ci kaw di wàcc. te boo raxasee ci suuf di yëg loo raxas di nga ko takkalaat ger gi day ñëwaat. bu ko defee nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi di yëngu ci transport walla ne gis na kat ñi ci kaw ñi ngi ger ak randal euh, alalu askan wi. Hmm. day jafe loolu loolu loolu ngir ñooñu nga xam ñoom lañ dénk ngir ñu jaarale leen yoon mën leen jaarale ci yoon. moom moo tax may wax ne kat mbir mi dafay tàmbalee ci état te dafay delluwaat ci état bi. moom mooy principal responsable. alors jërëjëf Daouda Thierno euh, bu fekkente ni. Euh, sukkandiku nañu ci li nga xam ni sa natango yi yëkkati nañu ko ñi ngay bokkal li nga xam ni mooy jataay bi ay la yowén am na ay aspect yu mu wax wax na lu jëm ci euh, wàllu visite technique joxe na exemple ci oto boo xam ni ay la yowén ku ne xam na ni bii moom euh, su fa duggoon waru fa nat loolu ku ne xam na responsabilité bi fan la féete wax na ci wàllu permis de conduire yi itam mu sukkandiku sax ci kàddu yi koo xam ni ku ne ràññi na ko muy góor a mu wax naa am na ay permis yu baaxul mais am na yu baax yoo xam ne ñi ñu koy jox ñoo nekkul ay chauffeurs yu baax <laughs> loolu itam responsabilité ku ne xam na fan la euh, situé wu waaye wax na itam lu jëm ci wàllu corruption bi ci ñi nga xam ne ñooy takk der nekk ci tali bi ni ñuy jëfee ak ñenn ñi loolu itam responsabilité bi ku ne xam na fan lañ koy mën a situé bu ñu ko bëggee saafara loolu yëpp nag bokk ci li nga xam ni mën na indi jëye yu mel nii te wax fa dëgg yàlla responsabilité bi mënuñu ko wekk lu dul état ndax loolu mën nga ko nangu ndax loolu itam mën nga ci indi ay leeral li ma mën a nangu pap mooy. Mhm. responsabilité humaine d'abord. Mhm. maanaam mbir mi ñu sore ñu dem ñu dikk ci doomu aadama bi la d'abord doomu aadama bi nag mu ngi ci biir état mu ngi farab mu ngi APR mu ngi chauffeur mu ngi keneen mu ngi keneen mais li am solo ci côté état mooy effort yu état consentir ak beneen affaire bi mooy mesure yu mu jël ndax c'est applicable ak mesure yi lu mu mën a soppi. sama waa ji apparemment xamul mesure yi parce que mesure boo ko xamee dëgg dëgg dëgg bu ñu toogee ci ay plateau di wax waa Sénégal dañ leen war a soññ ci njublu ci. mais littérature la rek de. waaw no non non Pape non non non mesure yi buñ ci sukkandikoo non xaaral parce que boo nekkoo xamul mesure yi moom mën na ko sax tontul boppam mais ki fàttali mesure yu njëkk ya. mu nekkoon fukki mesure yu Boun Abdallah Dionne jëloon en tant que premier ministre. ki la fàttali loolu boo ko waxee ni xamul mesure yi itam. xamul tax ma <laughs> étape bu ñu toll étape bu sensibilisation la. yee nit ñi ci ñaar fukk ak ñaari mesures am na erreur bu mu def bu ne dañu tere nit ñi tukki guddi terewuñ nit ñi tukki guddi dafa am ay xeetu oto yoo xam ne dañ leen ni bu 23 heures xase ba romb waratu leen daw. te ay la yéwén ñun ñi dañuy daw guddi. man barki dem ba Fuuta laa jóge daje naa ay bus yoo xam ne ñoo nga jëm Ourossogui jàpp naa ne ñu daw heure boobu seen lumière leerul. te lu yëpp ci doomu aadama ak allure bu ñuy daw ñu koo daw. loolu moo indi ñu tere façon oto boobu daw heure boobu. te loolu tam nekk lu yanu maana lu yanu maanaa dëgg yàlla. lu yanu maanaa loolu moom wax fa dëgg yàlla. donc tey tey tey tey tey tey. yanu maanaa ci bu sëve ñëpp pour yor bakkan bu tey étape ñu toll nii Pape dafa di étape bu cruciale ci suñu dundu réew. absolument. xam nga man laa doon tiit ñu ni infrastructure routière bi. Ah, ah. dafa am défaillance. route Kaffrine jàpp Tamba bokk na si yu gën a baax tey ji ñun dañu yàgg tukki ci biir réew mi sax xam la fa amoon ci yoon ci yoon ak ak accident tey loolu dañ fa président Macky Sall ak pragmatisme bu mot sëkk mu liggéeyaat yoon yooyu bu ñu leer nañ nga dem ci yeneen axe ci biir réew mi mu defaraat action yooyu yëpp ñu leer kon bu ñu demee nag ba tollu ci mbirum responsabilité humaine bi mooy chauffeur bi ci moom ndax bu gémmantoo am na façon oto yoo xam ne du benn chauffeur rek ko war a yor. yenn distance yi waroo ko daw da war a def arrêt da war a nangam da war a nangam te duñ ko respecté loolu nag dafay dellu si ñun. dafa baax yow activiste bi man politicien bi. may wax ak sénégalais bi ci lu mu mën a xamal ko ni saa lii du pour état sa yow la yow d' abord sa sécurité peut-être que ministre bi ngay wax du daw yenn heures yi. wala buy dem am na cortège am am na sécurité am na nangamam kon bu la jëlee la ay mesures ko pour ta sécurité d' abord. loolu dafa bokk ci aspect yoo xam ne ci lañu war a gën a attardé wu tey leneen li tam mooy état du Sénégal mais nañu ànd ak moom ci bon fois wax na ni premier ministre dafa dajale képp koo xam ni mu ngi ci secteur bi mooy transporteurs yi muy syndicats yi mu ñaq xam muy usagers yi mu keneen ak keneen ak keneen ñoom ñoom ñoo dañuy waxtaan maintenant nag responsabilité bu mu bi ci état la état mooy jëli mesure. absolument. bu ñu waxtaanee ba noppi état mooy jëli dogal ne nii laa ko bëggee. waxtaan bi rafetal bokk na ci. inclusion boobu nga wax bokk na ci. mooy déggoo. mais nag responsabilité état la. moom mooy wax nii lañ koy doxale dëgg la ci démocratie lañ nekk nag. kii dina taxaw sànq maa ngi gis ay da da borom ne non war waruñu tere jaay pënë ainsi de moom xalaatam la mais boo gisee état wax ko dañ jàpp ni am nay façon pënë yoo xam ne oto bu ko sëfee di dem mun na indi ay gàllankoor. mais dafa may technicien mbir mi dafa may ingénieur yoo xam ne am nañu xam-xamu poids oto fan la war a yem pneu bi fan la war a yem nan la pneu bi war a mel donc daal Pape tey étape bu ñu toll muy activiste bi. muy politicien bi. muy technicien bi. ku mënta doon dañu war a yee askan bi dañu war a orienté waat sunu ay discours ak si sunu responsabilité bopp ak sunu àqulaay taaraatam daf ci baax bon foi. Mm-hmm. bonne foi mooy. ñu nangul président Macky Sall 2012 ak maintenant li mu def ci infrastructure routière kenn defu ko fi bonne fois mooy président Macky Sall mesure yu mu jël pour sécurité routière am kenn su ko jël yàgg nañu wax ay mbirum sécurité routière ak yooyu kenn créé wu agence nationale boo xam ne loolu lay occupé wu jox ko budget jox ko directeur général jox ay technicien agence baa ngi fii ci Ndakaaru barki Demba Ndiaye wax nañu ne dañ ko war a renforcer côté financement bu gën a sensibiliser gën a xamal nit ñi donc nag bu réew mi tolloo foofu ñu koy tabax. amuñu moyens yëpp amuñu outils yëpp ñu koy wut pour sécurité routière gën a am ci réew mi mais wax dëgg yàlla dañu war a applaudir ci côté yëpp. Mm-hmm. wax nag des na am na ay jéegu yu may sàkki. Mm-hmm. dem réew mi d'accord merci euh, Thierno Abdou Thiam. Euh, boo dégloo Thierno nag di nga xam ni euh, wax fa dëgg yàlla am na ay jéego yoo xam ni président de la république def na ko accident mënta ñàkk. Mm-hmm. waaye tali yi mi ngi fi agence bi mi ngi fi. te mënoon naa gën a metti xëy na ci wàllu accident yi mais terewul am na ay jéego yu ñu ci def. ndax loolu mën nga koo gis yow itam. waaw Pape je pense que li Sénégalais gis yëpp euh, mooy li sama euh, daaw di wax rek Sénégalais lépp lu ñu li ñu remarqué mooy avec la président Macky Sall dafa nekk nguur goo xam ne nguuru taf yëngal la. Mhm. nguur goo xam ni dañuy dara day xaw rek ni cëpp ne ci wax ci ba ci kanam rek ñu fàtte ko. Mhm. wax na léegi ci 10 mesures yi yoo xam ne amoon na fi. boo xoolee depuis 2012 ba léegi président Macky Sall lan la fi teg loo xam ni réglé na problème mu accident yi parce que def nañ fi ay milliards def nañ ay agence amul njëriñ ci askan wi askan wi problème bi ñoom mooy am na accident y a 700 morts chaque année est-ce que 700 morts yi wàññeeku na wala wàññeekuwul depuis fi président Macky Sall bu nekkee ba léegi affaire day gën yokk xam nga tax parce que dafa am problème vision moo am problème Macky Sall si nga damay fàtte ko tuuti rek c'est important ñu wax ko président Abdoulaye ba mu fi nekk dafa amoon seen bus da benn vision bu leer créé benn seen bus à à à Thiès ñu waroon changer bus yi bu ñu paree changer camions yi bu paree changer taxi mu nekk une vision à long terme xam ne pendant dix ans Sénégal dafay changer bus yëpp ku nekk dem bus yu bees. ñu ko war a defaree ko Sénégal moom emploi créer lépp mais président Macky Sall ñu mu def ana seen bus anamu deewul. en matin maa ngi déglu euh, un directeur de CETUD di wax ne ñoom en 2010 def nañu benn benchmarking dem Côte d'Ivoire dem fa Faso pour xool comment ñuy réorganiser les gares routières ba am benn méthode benn projet boo xam ne pour insérer au Sénégal en 2012 président Macky Sall dafa ñëw sànni lépp fële donc aujourd'hui li leer tey Sénégal yëpp gis ko mooy am le secteur du transport dafa nekk en crise te loolu yàgg na crise boobu nag du ay mesures yoo xam ni dañ koy def ci benn fan te Pape nga li jaaxal Sénégal yi accident mënoon am samedi lundi altine yi génn ay mesures 22 mesures mais xanaa bu kër sax bu amee problème du ñaari fan lañ ko mën a régler dañuy toog waxtaan ak les acteurs yi c' est pas seulement les gens qui sont dans le transport parce que le transport dafa yaatu am na koo xam ne tey nekkul nekkul chauffeur nekkul apprenti mais ci transport la bokk mais war a inclure est ce que a toog benn altine rek premier mi génne ngeen ko gaaru ceer jaay pëne yëpp ñu ngi wax ci problème donc le problème il est sérieux aujourd'hui li ñuy dal dalul président Macky Sall ñun ñëpp la dal donc pour ñu régler ko ñun ñëpp ñu war toog nekk benn waxtaan xool nan ñuy régler problème mais c' est pas des mesures 22 mesures mooy régler problème le problème il est sérieux aujourd'hui li laaj le premier ministre li ñuy wax la président Macky Sall mooy ñi taxawaat xoolaat fan lañ jëm ak lan lañ bëgg a def ak kan lañ ko war a def te loolu Sénégal yëpp la interpellé donc les 22 mesures là mënul jàll parce que am na yoo yu bëri yoo xam ne tey am nga njaboot njaboot gi am nañ problème nga jël ay mesures yoo xam ne indoo yeneen jàngoro yoo xam ne ëppul sax jeexat ci njaboot gi loolu war nga taxaw xoolaat na bu bu jëm foofu parce que aujourd'hui les Sénégalais se rendent compte que tey am na mesures yoo xam ne bu ñu jëlee problème yi indi sama ëpp doole problème yu mu war a régler mais jëlal tey bu ñu wax ne dañ dañ les pneus yu ñu war a dañuy pneus yu ñu war a jaay pneus yu ñu war a jaay tey Sénégal xoolal ñaata nit ñoo ci jël ñoo ci jënd pneu au niveau des maisons mères foo xam ñaata pneu nga ñu jënd lu ñu bëgg dëkk ci nguur gi ak ñi dëkk société ñoo koy def Sénégal ñi si 80 pour cent des Sénégalais pneu yi kii la ñuy jënd venant mm-hmm. te venant dafa dafa yaatu Sénégal ñaata lan mooy dugg venant au Sénégal est-ce que pneu non xamul mooy gën dama ne c'est un problème qui est là il faut l'analyser ñu xam lan la am na loo xam ne boo ko réglé boo interdit euh, pneu venant xam nga lan mooy indi pneu yoo xam ne njogaan lay doon ay chinois lay doon yoo xam mooy gën bën sax pneu venant yi donc problème bi dafa nekk problème bu complexe boo xam ne du problème boo xam ne benn fan lañ ko réglé dañu war a toog ànd ak dal parce que lu métti bu la dalee da ngay dal ba pare ko mais doo tëb rek ay solution loolu mooy benn ci des li ko mooy euh, service des mines nan nañ mën a waxee Sénégal oto yëpp nañ ñëw Dakar pour passer fee mais loolu wax xanaa wax jooju a ko mu nan la ko ministre mën a waxee Sénégal war nañ ko décentraliser te loolu le ministre des transports waxoon na ko mais am na benn émission bu defoon fii ak man. waxoon na maximum dans quelques mois. dinañ fexe ba décentraliser. pourquoi ñëwal en arrière tey pour wax nañ ne yëpp ñëw Dakar pour def visite technique loolu du xel. du xalaat du xel kenn waru ko xalaat Sénégal. du mënul jàll li ci des mooy am loo xam ni ñun ñëpp la war. ku nekk sa conscience professionnelle ku nekk fi nga nekk nga xool nan la ñu mën a dajee ànd nekk benn waxtaan ci problème transport. problème mu transport Pape Ngaye ku la ko mënta waxit ci tam problème boo xam ne dafa dépassé loo xam ne ci benn fan ci ñaar fan lañ ko mën a réglé. il faut des assises. yoo xam ne dañuy xool secteur yoo xam ne dafa am xam ne yow secteur yoo xam ne jëndewul ak dara wax naa ko léegi jëndewul ak dara transport mais dafa am impact transport te njaboot gi nag dafa yaatu. jël bu ñu jël décision dañuy jël en tout cas prendre en bu leen jël na tey Sénégal am na problème ñu jël ay mesures yoo xam ni man jàpp naa ne sax mesures yi c'est juste pour ñu fàtte pétrole ak gaz bi ak euh, courant bi ñu yokk ñu jël ay mesures yoo xam ne tey coow li bari na kenn xalaatut lu ñu yokk pour man parfois lañu teg boo xam ni pour ñu fàtte tey li ñu yokk lépp Sénégal yi tey koo xëy tey mi ngi ci les vingt deux mesures te pourtant yokk nañ courant bi yokk nañ euh, gasoil bi gars yi ko parce que mesures yi ñu jël moo ëpp doole moo ëpp impact négatif sur les populations. d'accord. merci merci Abdou Diegui. Euh, euh,